commission sociale bi aju ci kuréel gi di junnatun liman nazamaho di kuréel gi cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke taxawal ngir ñuy taxawu mboolem askan wi loru ci mbënd mi ci dëkk bu tedd bi di Touba yëkkati nañ seeni jéego ci ndigalu sëriñ bi dem nag seeti mboolem ñetti njaboot yi nga xam ne nii dañoo am ñu ñàkk seen bakkan ci mbënd mi le ci délégation bu takku jébbal nañu lu tolloog ñaari million ci suñuy koppar jébbal ko ku nekk ci ñetti njaboot yooyu yi le boole ci nag kàddooy masawu ak ay ñaan yu bàyyeekoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. ngir yéen ñi bokkam xam nañ ne sax euh, waajuram mën nga Fuuta te it allah dinañ dem foofu àgg fa ndax jaral nañu lépp loolu ndax ndax sëriñ bi moom yitteem ji mu am ci doomu aadama mm-hmm. amul fu mu ko yemale kon moo tax ñu ànd ak kilifa yii mm-hmm. kii ngeen gis mooy sëñ euh, Abdoulahat moom sëñ Habibu mm-hmm. moom kilifa gu mag la ci dëkk bi jiite Touba ci kanam topp ci sëñ Habibu mu mag bi nga xam ne mooy doomi sëñ Fallu ñoom ñaar ku gis kii rek gis nga ki ci des euh, sëñ Abdoulahat Bousso mi moom tamit moo jiite commission sociale bi nga xam ne mboolem ndimbal yi ñu def ci moom lay jaar bokk it ci njabootu sëñ Touba euh, sëñ Mourtala Lo mi itam nekk ci commune bi remplacé fii daal di fi toggalaale maire Abdou Lahad Ka ndax bi daf ñoo boole ah, kon li ñuy def dañ ko war a ànd euh, dëkk fii itam ku ne xam na ne sëñ Mambay Ñang ñii euh, li tax lépp yomb moo ñu ko yombalal ndax dafa nekk condition sociale waaye tamit tund yi ak xur fii yëpp mu doon ko xam ne poste de santé yi nekk Touba yëpp moo leen di coordonné kon moom euh, taxawaayam it moo yombal lii ba lépp ñu koo xam ak délégation bi ñu àndal ñëpp waaw kon ngeen xam ne euh, chef de quartier bi ak yéen ñi hmm. ak sef euh, de village bi hmm. ak mboolem fii nga xamante ne mooy mooy mooy mooy gaar bi defe naa gaar bu gaar bu mag la hmm. Touba Mosquée la ba tey kon mboole seen ñu ngi leen koy euh, ziyaare te di yeesalaat suñu ñaan ci moom di di wax ne rafet nañ jot ne fii mu ko defee ak nii mu ko defee ku suñu borom nar a texeel donc lañ daan gis mandarga yooyu ci moom kon rafet nañ ci njort la ca topp rek mooy sëriñ bi am loo xamante ne daf ko yëkkati ngir ñu teg ko ci loxoy bokkam waaw bu ñu jokkoo ay waajuram. yaa ngi ci kër gi. incha allah ba waajuram ne ñu jox leen ko. dañ leen koy jox benn la. su fekkee dañ ko faa war a yóbbu it ñun njëkk ni ngir yóbbu ko ba foofu. waaye dañu war a ñëw ba ci fii massawu leen. ba ngeen xam ne incha allah am na limu ñaari million yoo xamante ne dañ ko jox ndàmpaay ay bokkam. te loolu ñu def ko ci turu sëriñ bi. ak ci turu commission bi. mu junnatun li man na yi sëriñ Abib topp sëriñ Abib ci Touba ci kanam sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Lamine Lo moom soxna muslim sëriñ Touba moom it bokk ci adjoint maire ak sëriñ Youssou Diop ñi nga xam ne mooy jiite xisbu bu ak sëriñ Mame Mbaye Niang moom sëriñ Modou Khary Niang ñu ñëw teewal ko fi ak man mii di wax ak yéen ak ñi ñu àndal ñëpp ñu ñëw teewal ko fi ngir masawu leen ci xew-xew bi fi am ci sang boobaak léegi nag mu ngi ci xelam mu mm. ngi itam ci sunu xel nit ñi mu fi yónni ñëpp waaye xam nga ne dëkk bi dafa tolloon foo xam ne mm. euh, jóg jafe woon na nit ñi it sonnoon nañ mm. ñu nekk ci luy jéem a xeetli ñenn ñi ak jéem a ubbi yenn yoon yi ba nit ñi mën a dem mën a dikk loolu moo tax mu mel ne lu xaw a dikk waaye xew-xew bi mu ni mu dale ci kaw seen kaw ni la dale ci kaw ñëpp sëriñ bi yëg na ko mi ngi koy tiisoo bu baax a baax waaye nag dogalub yàlla la te suñ borom nag lu mu dogal rek daa fekk muy la gën waaw te demeen yi itam aw demeen la boo xam ne ko demee rek ñu am ci moom yaakaar ndax demeen la boo xam ne la li ñu wax ne moo ko sabab la ci njëkk mooy la doon yéene mooy xetli ab jullit di mbokkam di xaritam yàlla dogal ci la mu ci dogal kon mën nañoo xam koo jàppe ni ku jógoon di wuti lu baax far faat dab ko ci yow ni loolu nag la ci suñ borom waxoon rek la ñuy séntu ci moom moo tax sëñ bi waxoon ne kon nañ ko fi indil ko ay njaalam euh, masawu leen itam. yéene sëriñ bi ci ak ñaanuk sëriñ bi moo ëpp doole lépp dañ na dina ci doon misaal rek ñaari million la loo xamante ne ngeen ko jàppalee ndax euh, sang taxawaayam ci ci yow lu mel ni moom buñ ko boolee ñaanuk sëriñ bi yaakaar naa ne dina soog a mat ñaanuk sëriñ bi moom moo ëpp doole lépp dañ leen di ñaanal suñu borom dimbali leen euh, defal leen lu tax ngeen xam ne fu mu jëm ah. moo koy gënal fi mu jógee yéen itam du ngeen rëccu dara ci dara ñetti njaboot yooyu nga xam ne nii kuréel gi fekki na leen jaarale ko ci commission sociale ñoom itam jéego yi nag kowe na seen njort lool ba sax dëfal na leen ba fàtteloo leen lenn ci naqar wi nga xam ne nii ñu ngi koy dund booba ak léegi ñun nag bu leen yàlla boole hmm. ba ndogal bu agsi dañoo ba ci këram jaale li fi des yëpp xanaa loolu kolleer la rek jaale bi rek moo am solo li ngeen ci bëgg yàlla na yàlla na fay yàlla na yàlla àgg seen i yéene def ngeen lu baax def ngeen lu baax wax dëgg yàlla kontaan nañ li ma xaw a mer yëpp dañ kontaan ndax ba liy defee koñ bi yëpp dañoo mbooloo taxaw ñu doon benn ñu ma jàppale ba yàlla dogal ñu génn ñu jox loxo sappoor yi ni ngeen noonu la waa koñ bi noonu la ñëwee fii ñu wan ñun ñëpp ay benn lañ léegi ba ñu ba dëkk bi rakk kii bañ ko waral dégg mu def leen ndànk ba waa Touba mun na waa Touba am na ñu ñëw ba ñu weexee ma ne ko waa Touba nag ku ci ñëw na ngeen xam man la bu dee man ay benn lañ man la ndax fi mu la taxaw lépp waa dëkk bi mu ñëw taxaw foofu. ndax fii la ñuy daje kon ba loolu xëyee ñoom ñëpp dañoo bool ñu taxaw ci ba yàlla dimbali ñu génn ko ñu jox ko ci loxo sapeur mën nañu dellu seen kër kon ñoom ñëpp fii lañ daje ba yàlla dimbali ba nañ ndax saa yi nag ju na mën ngaa bëgg ñëw sax fekkee ndox bi moo la am na ñu xam ne ñëpp dañoo génn waaw loolu ba ma mu ne ah wax dëgg yàlla nga wax dëgg la ndax yow sax wane te loolu yow nii sax wane ko ndax bitig ay xale ya xoolal ñii laa bàyyi si dama naroon tëj ma amul problème ñu ànd yëpp ñoom li la wax ak li wax nii lépp benn la man ak ñoom ñëpp benn la wasalaam jërë ngeen jëf. maa ngi rafetlu suñu xol seet na guy. amul lu sëñ Touba. ku mu sëñ Tuubaa nag bu la sëñ Tuubaa yabalee nu jóge ci moom. su xol war naa sedd. sunu naqar da jeex na tey. yaay bi ba léegi day jooy. ku mu boo sa sang la lay wooye. daf ko taxoon te mu ñaar bant rek la ko yàlla jox góor ku mu woo sang la lay wax waaye sunu naqar jeex na tey jii. sëñ Yuusu mii wax dëgg yàlla gis gisuñu gisuñu ko waaye nu ko gis ci télé bi yëpp pasteefam topp sëñ Aatu sëñ bi sëñ bi moom daanañ fa dem di ko siyaare. Mm. sama suy bi sama wala man kon nag ngay yëgal sëñ bi di ko daal ay yaayam seen xol sedd na ndeyam xolam sedd na bàyyam xolam sedd na ay tàmmañam yëpp seen xol sedd na i jigéenam yàlla na yàggal ñëpp barke sëñ Tuubaa suñu xol na guy lii ëpp na nag sax rëy na lool ñaa ngi doy na sëkk naka bañ koy denc sëñ bi ni ko doon taxaw du sëriñam ñaan sëñ Mountakha la ca jiital ñaan sëñ Mountakha muy dinaa ci def ñaan gi pare dinaa ko ñaan la boole ci mujj du ci bàmmeelam bañ ko denc daa taw bu tooy xëpp kon loolu daal la xel kon nag suñu xol yaakaar gën naa dëgër suñu jot gën naa rafet jërë ngeen jëf noonu seen sëñ bi di siyaar bu baax yéen suñu jëggal tool bi amul sëñ Tuuba suñu xol seen na koy ci fàttali rek kuréel gi di Junatun Liman Nazamahu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides samp ko ñu fasanti ko ci commune bu Touba Touba ca kanam ak Hizbu Tarxiya ak mbooleem julliti ak taalibe yi seen liggéey bon ko tàmbalee ak léegi ëpp na ayu ci ay wànqaas yu fasantikoo commission sociale di ci amal liggéey bu am solo jëneen jëfa ngi joo xam ne nii day daal di firndeel taxawaay bu am solo bi nga xam ne nii cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke lu dañ mukk di ko am ci mboolem askan wi